benn doomi aadama ñoo ñàkk seen bakken ci taw bi ca Grand Yoff ab liir bu am ñaari at moo rek daal di ñàkk bakkenam ginnaaw ab miir bu daanu noonee lañu ko nemmeekoo it ci ginnaaw raay góor bu am fanweeri at moo ñàkk bakkanam ci suufu pont bu train express régional bile ca kaw Kaolack it benn doomi aadama ñàkk na fa bakkanam mu ngi am lu toll ci ñaar fukki at ak ñaar yéegoon nag ci charrette doon dimbali ab xaritam ci noonee nag la ko ndoxu taw bi mooy Ngara Ferlo foofu yitab sàmmkat nag buy wuyoo ci tuuru Ndaala Tine moo ngi amoon lu toll ci juróom-ñetti at moo daal di lapp ci ab marigot ca bëj-saalumu réew ma ci région bu Sédhiou bilan bi def na ñaari doomi aadama yu ñàkk seen bakket ñeent yi jëlee ci gaañu gaañu ca village bu Sumbundu Pakaw nekk ca commune bu Oudoukar ab miir moo daanu yitt ci xale bu jigéen bu am ñaari at mu ak juróom-ñett da cee jëlee ay gaañu gaañu ci commune bu Fawoon it nekk ci département bu Bunkiling ab gaz moo daanu ci kaw ñu fa dëkkoon ba kenn ñàkk ca bakkanam ñett ñi jëlee ci ay gaañu gaañu. Fatmata Diop te ca lim boobee kat boole ci ñaar mi ki courant bi mas ci Tëngéej ak ki xale waxambaane wi miir bi daanu ci kawam fii ci Cambérène. ngeen si biir réew mi wala si bitim réew da ngir mën a xam li nga xam